bismillah fii niin ak daara yàllaaw sawi baqa abim di fii ka yàllaaw ni mu ko baaxoo amale at mu jot ci weer wi nga xam ne moo njëkk ci atum jullit yi di muharram di tamxarit cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou xalif général des mourides dem na ca diwaanu njaareem ci dibeer ji dëppook juróom-ñetti fan ci muharram atu 1444 ginnaaw gàddaay gi di le 7 août 2022 sëriñ bi bàyyeekoo fii ci Touba Mbacké ñëw ci njaareem fii ci dëkk bu tedd bi ci suuf su tedd sii nga xamante ni moom moo di Buqaatul Mubaarak sëriñ bi fas yéene fee amal ngan gi nga xam ne at mu jot dina ko fi amal ci dëkk bu tedd bi Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké xalif général des Mourides bi mu agsi ci diwaanum njaareem mbooloo mu takku lool ñoom ñoo ko gàttandu bokk na ci daara xisbu tarxiya ni nga xam ne noonu ko baaxoo amalee ci mbooleem bërëb yi nga xam ne sëriñ bi dañu fay dem ci njiital jëwrin sëriñ Youssou Diop ñu gàttandoo ko ay xasida waaye sëriñ bi bi muy ñëw ànd na ak yeneen i kilifa ak yeneen i yi nga xam ne ñoo koy taxawu ci liggéey bi fii ci diwaanum njaareem nag sëriñ bi dina fi def ay fan diirub ngan gi li nga xam ne moom moo di waa daañu fi amal njàngum xasida gu yaatu goo xamante ni nañ ko baaxoo amalee ci at yi weesu muy suba teel gi ak guddi gi diirub sëñ bi nag di fi nekk fii ci buqaatul mubaarak ci njaareem ci kër gu mag gi nga xam ne mooy kër cheikhul gi nga xam ne daanaka def na fi fukki at ak juróom ci jamono bi muy nekk résidence surveillée fii ci njaareem ndax fii ci kër gi sax fi la wujjee sunu borom diiru fan yi nag daañu fi amal ay ziyaara ay bernde ay njàngum alquranul karim ak xasida yu yaatu lépp day tàbbi ci cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou xalif général des Mourides ci ni nga xam ne noonu lay dundalee ci ak jaamu yàlla ak liggéeyal Serigne Touba mboolem barab yi nga xam ne dana fa dem.